te nag li di entrepreneuriat jigéen ñi fii ci mim réew ci domaine yu ci mel ni immobilier ak métier yi di presse jàmp na loola ci autorité yi ñu dëkk bi ministère bu yor wàllum femme petite enfance amal na nag benn ndaje ak leader yi nga xamante ne ay jigéen lañu di yëngu ci ñaari domaine activité yooyee mbëbët bi nag moo di ñu xool lan moo di seeni ay jafe-jafe déglu seeni ay digle ngir ñu gën a mën a yombal leadership féminin parce que xam nañu le 7 mooy jour assise euh, de l'entrepreneuriat et de des des femmes lépp xam nañu ne assis financement lu lu lu lu baax la parce que dafay permettre jigéen ñi wax seen i jafe-jafe mais aussi jigéen ñi tamit jox ay orientation monsieur le président pour que ñu mën leen gën a mun a jàppale parce que nag jigéen ñi taxaw nañ fu ne mais nag toujours dafay des à tout moment pour que ñu mun a émerger ba ñëpp ñu xam ne ne que jigéen ñi émerger nañ comme góor ñi. frein yi nag bëri na lool. Je pense qu'on n'a jamais donné la parole. Euh, aux dama gis ne dañoo war a gën a jox jigéen yi kàddu jàppale leen jàppale soxna yi nga xamante ne ñoo ngi ci milieu entrepreneuriat bi jigéen yi nga xamante ne am nañu ay capacité ngir ñu mun a jànkonteel lépp li nga xamante ne ay jafe-jafe yi nekk seen kanam. nous avons besoin quand euh, ñun nag dañoo soxla ku ñu dooleel ku ñu gunge ndaxte ñun ay soxna lañ waaye am nañu nag pexe ngir mun a créer indi ay innovation yu bëri te jàpp naa ne sax ci secteur bi ñoo ngi ci mun nañ ci lu bëri. je pense qu'on peut beaucoup ci bile ndaje bi nga xamante ne nag amoon na ci ay waxtu échange yi nag amoon nañ solo lool ci côté ministère bu yor wàllum kanunu ci jigéen entrepreneur yi lee ñoom ñee nga xamante ne ñoo ngi ci métier wu presse ak immobilier waaye nag femme leader yi bëgg nañu rek seen bëbët yi antu ñoom ñee nga xamante ne dañuy faral di jànkoonteel ay jafe-jafe yu bëri ci seen wàllum liggéey.